ci wasaare lamb ñu ngi di nuyu di leen nuyoo tey fii ci njaareem njaay ci combat yu mag combat yu neex bu lamb ji jàllee danañ ci ñëw ak yéen ci mu gën a yaatoo waaye pour l'instant lamb ji di daw mooy diggante caat bu daam won ñu ginnaaw ak mag su nguy ñaari xale di bëre bëre simple caata ngoog caata ngoog caata suuf wala moo ñu won ginnaaw caata ñu won ginnaaw noonu moog mag su nguy la nekk seen premier combat attention max foo jëm max foo jëm max ak caat seen jàppante bi bëgg a yàgg waaye ndeysaan xam nga bas mooy jinne cameraman yi image yooyu nu mel moo koy filmé cadré ko max ak caat mu ngi jàppante ba léegi waaye dara amagul combat baa ngi bëgg a yàgg Max ngemb lu weex Caat ngemb weex Max ngemb lu xalali jël nan la daan nan Max daan nan Max deuxième combat de la soirée diggante King bu Mbudaay ak Ngel Jonn bu ginnaaw raay moo ñu woon ginnaaw King moo ñu woon noonu moo xaw a jàkkaarloog ñun xaw a sunu ndijoor am ko Nguel Dione jàppi na ko Nguel Dione nu muy def lii Nguel Dione muy def lii Nguel Dione King nga koy takk Nguel Dione takk na ko fàqat na ko da koy rey waaye Nguel Dione mii moo mën a bëre Nguel Dione mii voilà diggante Bébé Diène ngemboo ngemb lu Ama Balde bu Touba Njaareem ñu ngi noonu ñu ngay lewtoo Ama Balde ak Bébé ata Ama dóor na Ama dóor na la xeex ba baaxul Ama Bébé Diène mi la attention Bébé Diène dugal na ku waaye dalul Bébé Diène dugal na ko waaye dalul Ama dafa ñeme Ama jëli na ko Ama jëli na ko Ama jëli na ko Ama na ko fàqet na ko war na ko ndombo war na ko ndombo war na ko ndombo war na ko ndombo war na ko ndombo Ama war na ndombo Bébé na ndombo Bébé Diène Ama war na ndombo Bébé ndax bébé combat wala troisième combat diggante Rocky Balboa ak Boy Séréer Boy Séréer moo ngemb moo ngembal won ñu ginnaaw Rocky Balboa moo jàkkaarloog ñun nële Rocky Balboa Boy Séréer ndeysaan quel lamb quel combat ndeysaan ñuy ñaanal suñu papa Boy Djiné Boy Djiné mi nga xam ne ku wax lamb njaareem da nga ko tudd bëre ba bàyyi bëre nekk communicateur traditionnel continué di jàpp ci lamb ji attention Rocky Balboa caxabal na Boy Séréer daan na ko daan na ko Rocky Balboa caxabal na Boy Séréer daan na ko jeex na jeex na voilà combat spécial diggante Libidor bu écurie Mboudaay Tidiane Faye bu champ de course écurie Goriyam 2 arbitre baa ngi leen di déglu di xool ay juge am ba xam bu ñu noppee mu doog a sifflé juge yi xaar Tidiane Faye moo ñu woon di joor Libidor moo ñu woon càmmoñ ndaw combat bu nar a metti ndax Libidor ku ko xam-xam ko muy dóor kat Libidor du ñeexu ñebe kenn waaye ay gi Tidiane Faye pare pare te mën a bëre te gaaw Tidiane Faye ak Libidor ñu ngi nii Libidor moo ñu won di jo moo jàkkaarloog ñun Tidiane Faye moo ñu won ginnaaw Libidor ak tiijaan fay xëppoo nañu suuf wala diwoo nanu lu niroog suuf ba tax rib ñoom ñaar dafa mel ni seeni sëriñ buñ bokkul ndey ak baay it jegante nañ ay mbokk lan bokk nañ tour de famille arbitre woowaat na leen ca diggi géew ba ñoom ñaar Libidor jàpp na Tidiane jàpp li bi jàpp na Tidiane jàpp na fi mu ne nii puusante bu temps bi jeexee bu temps bi jeexee bi jeexee li door bëreel balaa temps bee jeex ndax am nga ñaari avertissement et alors Tidiane Faye ba léegi amagul benn avertissement donc bëreel bëreel bëreel bëreel bëreel Tidiane Faye li bi door Tidiane Faye jàpp na benn loxo li bi door jàpp ñaari loxo ñoom ñaar ñëpp ñu koy liggéey. attention Libidor jëli na ko ci suuf jëli na ko ca suuf jëli na ko mais Tidiane fam ko bloqué fam ko bloqué moo dëgër fam ko bloqué moo dëgër Tidiane Faye fa mu bloqué Libidor moo moo dëgër fa Tidiane Faye bloqué Libidor moo dëgër dugalaat na benn loxo dana jàppam déet Libidor a ngi koy jéem a kal kal na ko Tidiane Faye Libidor Tidiane Faye Libidor Tidiane Faye déggal waxi dof ma wax ma Lac ak Zarko. sifle na bokk. arbitre sifle na grand combat diggante ndigal ak Zarko Zarko Soweto ndigal écurie Ngelmaak ñu ngi noonu ñaari xale yi ñaari xale yaa ak Zarko. Ndigal ak Zarko Ndigal moo ñu woon ginnaaw ngembo ngembu lu li Zarko la ñu jàkkaarloo mu ngembo ngembu lu weex gis Ndigal li ko topp ci ay nit jóge kër Cheikh Ibrahima Fall lamb Babel Mouridina may sa biige Kumba Fall Ndigal cokkaas na waaye Zarko Zarko jël na Ndigal daan na ko Zarko daan na Ndigal Zarko daan na Ndigal laa ilaaha gaaw na ba léegi nekk si biir géew di def dernier silence mais man maa ngi xam li ma xam rek barki alxuraan kaw ba si suuf maa ngi sant ñëpp sama yaay yëpp sama papa yëpp peno maa ngi koy sant bu baax billaay grand yi man dama leen a ruus mais man aw ma problème dama leen a ruus mais aw ma problème barki Seydina nañu gën a jàppale man dama am kerta si ñoom billaay wallaay mais aw ma problème mu ngi noonu yi ñoo ko gisandoo fii la xewee ci stade Ely Manel Fall bu Njaareem journée novembre 2019 premier combat diggante caatu caatu daam la woon ak max bu nguy nga gis na combat ba demee deuxième combat diggante King Kong bu Mbudaay Ngel Jonn bu raay troisième combat Ama ak Bébé Diène Bébé Diène daan ko quatrième combat Rocky Balboa daan Boy Séeréer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 waaw ñu ngi leen di bëgg waa Wassare Lamb maa ngi koy seetaan Sénégal yëpp nañ ko bokk seetaan te xam ne fii la morom yi di xuyum xuyumee fii la bomb di naan bum kàngay na bu daal baax na